wane moom Ousmane Ka esprit de bon ñuy rafetlu kàddu yi am na solo mu bëggoon laa laaj benn question rek boo xam ni xam naa ne waroon naan au sujet doon ndax ñun si mois de juin jeunesse bi ñu ngi préparé nawetaan te daaw on avait senti que euh, dañ koo que mën nga am yaakaar ne ren nawetaan dina am. merci beaucoup euh, c'est une question que j'adore bien parce que nous ñi bu ñu nous dañuy waxante la nga xamante ni avancé suñu bopp nawetaan amoon na nawetaan am nañu wax ne que ay moment ya nga xamee pour que ni ñi exercer le sport euh, également a une activité c'est pas juste du sport c'est pas juste le football mais ay activité théâtrale ainsi de suite loolu mooy esprit nous. def nañ ko fii Gossas département bi yëpp di ko def comme yeneen département yi mu am ay incident ya nga xamee ne amoon na maanaam violence ma convoqué une réunion pour ñu waxtaan ci violence yooyu parce que loolu violence amul dara la nga xam ne que moom lay indi communauté bi ñu waxtaanee ah après ñu ne du ma wax sax préfet mu ne c'est-à-dire kuréel gi fa toogoon maanaam ASC e yi imam yi euh, clergé bi collectivité ñun ñëpp a fa pour waxtaan bi ñu kiwee ñu ne bu amaatee violence ñu arrêté nawetaan yi mu awat mu amaat violence ñu arrêté nawetaan yi violence bi lan la dañu jël ay xeer ñu dóor ko ci oto adjoint préfet loolu c'est de l'indiscipline notoire. Et l'autre, on ne l'accepte pas. Parce que ce n'est pas normal que les gens soient en danger en permanence. le jadou. te le jaaduwul bu jadou, doon maase di def lu jaaduwul taxul mu jaadu le lu day le nga ne ñoo def nga que mais xam nañ leen ñi ko def xam nañ leen nañ leen dénoncé nañu fexe ba ñëpp ñi nga xam ne dañuy ñëw di yàq mais ñu dénoncé leen ñu génne leen tant que ñun amuñu ful lay fay fayda ba nga xamee ne ñii di yàq dañ leen di dénoncé di leen génn du ñu am lu baax est-ce que dañu war a continuer noonu est que dañu war a wéy ci yoon boobu.

loolu moo tax démb mën naa wax ne que euh, oto adjoint préfet moom nañu sànni woon ay xeer te suba oto conseil départemental nañu sànni ay xeer ginnaaw suba kër maire nañuy taal ah. ginnaawaat suba ainsi de est-ce que loolu nañu war a continuer loolu jaaduwul te lu jaaduwul nag dañ koy arrêté toute façon euh, nous, on a prévu de faire une le 11 à partir de 16h pour que nous puissions nous la parce que c'est important que nous, ay jeunes qui ñu kiiwee nous euh, un moment de récréation mais ya nga quand même des saints. Je bëgg lancer une appel aux ASC e pour que nous jeunes c'est une responsabilité. C'est une question de responsabilité. Hein. Moi, je prends mes responsabilités. Pour que nous, nous jeunes c'est une responsabilité. Wahar, c'est une supporter. Voilà, wahar, nous Violence a une place si sport. Le sport a une violence. Ce n'est pas une violence, c'est comme du soir. Mais regarde par exemple, ce que nous avons en Angleterre avec les hooligans. Maintenant, nous mais nous, nous, ñu doon def ay violence moom nañu Nous ñu sànni football bi di continuer mais su nekkoon ne dañ ko mais kon kan du football kon football c'est ça man j'en appelle pour que chacun prenne ses responsabilités Nous nga xamee de troupes, qu'on les dénonce et malheureusement on ne dénonce pas mm-hmm. c'est loolu euh, man man man man ak ñàkk fayda laa nga xam ne dafa lu jaadu neel kii jafa lu jaadu noonu nañu mën a avancer su nekkee ne bëgg nañu Gossas dem bay mën a am ay équipe au niveau national dañ koy def nga xam ne que yëpp dañ ko jaaral yoon violence ñu jël ko ñu teg ko fële ñii koy def ñu wax ak ñoom ñu ne leen li ngeen di def baaxul te jaaduwul waa ah, bu nekkee nag dañ ko nar a continuer ñu ñu jàmmal wax ñoom et puis surtout waaye mais nag su nekkee ne ñun dañu bëgg dara il faut que ñu jël suñu fulla fayda ñu jaar si loolu et que man bëgg naa it yi nga xam ne que ñoom ñooy ac ASC ñoom ñu baalu ax waa Gossas parce que dañu tooñ waa Gossas ñoom ñoo indi fitna woowu Gossas fii ba ñu arrêté seen i nawetaan bu nekkee ne dañuy wax ne que ay moo arrêté seen i

Euh, problème sécurité man su su du duma ko féetalee foofu gis nga nit day day day day day jàng fonk moroomu nitam ak lu mu mënti doon man dama war a fonk keneen ki dama war a respecter keneen du ne dafa am xaalis moo tax ma koy respecter du ne dafa am ay ndombu tànk moo tax ma koy respecter dama koy respecter parce que sama moroomu nit la

ñun ñëpp ko moom et su nekkee ne dañuy wax rek suñu diine sax daf ñuy tere pour te ñu yàq yëfu mbooloo loolu lu tax ñun suñu diinee di ñu tere lii suñu aada di ñu tere lii ñun ñu ne dañ koy def ba pare ñun ñu toog di seetaan ñu koy def bu boobaa nag ñun nan lañu war a qualifier dañu war a bañ loolu c'est-à-dire du être indiscipliné et tant qu'on est indiscipliné duñu avancer amul réew ma nga xamee ne dafa dafa avancer wala mu développer par l'indiscipline amul et man yaakaaruma ne l'indiscipline dina am fu muy fu muy yóbbu nit nañuy fonkanté da nga xamé ne mom mo ñuy dajalé manam moy fo moy def sport ñu def ko lepp la nga xamé ne bokul ci lolu ñu jël ko ñu génn ko ci bitt. di ñaan nak euh, yalla dafa mbir yi ba nga xamé ne su nekké né dañ koy reprendre ñu reprendre que dans de bonnes conditions ñu reprendre ko aussi dans des ki nga xamné terme clair nga xam ne dinañ ko mëna def ci jàmm buñ ko mëna lé rek ñu bay ko et puis c'est tout ça. ay ca mu ngi noonu waa esprit Gossas TV ki nga xamante ne nii lu mu wul baaxul lu baax ci Gossas mu wane jeune talent yi mu wane ndaanaan mu wane icône yi mu wane moo tax macha allah télé baa ngi bomb mu ngi toj damaa focus leen ci bi te ngeen jàppale télé bi ndax eh esprit Gossas la la moo ngi doxal moo ngi toj dafa lu la man maa ngi ne pocak ci biir